personnel boobu ñu teg ko depuis 92 mu porte mu mu coïncider avec de grosses avancées démocratiques euh, processus électoral bu bu bees booba tey ñu ngi conseil constitutionnel bi les hommes politiques tamit dañuy entretenir euh, de la nécessité de mettre en place une cour euh, constitutionnelle euh, dañuy jël exemple ci ay pays yoo xam ne en matière d'avancée démocratique ñun duñu seen duñu seen moroom lan mooy la véritable différence euh, bi nekk entre conseil constitutionnel ak cour constitutionnelle cour constitutionnelle lan lay apporter de de nouveau dans notre armature euh, juridictionnelle et constitutionnelle xam nga cour constitutionnelle ma ma defal la misaal xam nga loi d'amnistie bi bi ñu voté Mm-hmm. au mois de mars dernier est-ce que xam nga ne loi d'amnistie boobu dafa violer constitution bi. comment ça. parce que loi d'amnistie boo jëlee article seize constitution bi loi d'amnistie euh, euh, président bi ay délit mën a voilà délit politique ak infraction connexe loolu la mën a amnistier mais mënul amnistier crime. te amnistie na ay crime te or ay crime la amnistie loi bu bu nga xam ne inconstitutionnel xam nga fu mu nekk nii jàll na bu ñu garder conseil constitutionnel loi boobu jàll na ba noppi jeex na waaye bu ñu indee cour constitutionnel bu boobaa ay ñoom euh, amnistie international wala Ligue sénégalaise des droits de l'homme wala ONDH wala wala eh, ONG 3D et cetera bu boobaa ñoom ñu mën a demaat devant la cour constitutionnelle tegaat ko donc euh, euh, même même kiiwu amnistie bu loi d'amnistie bu 2005 bi loi Ezzan bi mhm. bi nga xam ne moom moo élargir de prison les les les les les, les assassins de maître euh, de maître Babacar Seye boobu aussi dafa illégal ah ouais ah bon Ah, parce que dañu rey dañu amnistie yi nga xam ne dañu rey. même si le procès l'article 16 constitution en tout cas laaluñu ko xam laaluñu ko buñ ko laalul article 16 bu constitution bi dafa wax ne président bi ay délits lay mën a amnistier délit politique ak ay euh, infraction connexe rey c'est un crime torture c'est un crime yooyu dañu ko amnistier même le droit international du ko amnistier. waaw ouais, parce que à vingt ans après il y en a qui sont. Voilà. qui sont poursuivis jugés et condamnés. mais pourquoi euh, donc bu ñu tegee cour constitutionnelle. Euh, lan da nga ne. waaye amnistie ak ligue sénégalaise des de l'homme individu yi. Mhm. dinañ mën a dem. devant la juridiction constitutionnelle. bu boobaa droit de l'homme yi dañ koy gën a renforce bu boobaa dootul doon affaire député rek. non non euh, du doon affaire député mm. xam nga député yi tamit dañu bokk ci ay majorité intérêt majorité seen intérêt majorité yi la ñuy doxal bu bu ñu amee intérêt dem devant le conseil constitutionnel ñu def ko bu ñu ci amul intérêt duñ ko def alors que parfois dinañu voter ay lois yi nga xam ne lois yu jéggi dayoo la. comme loi te citoyen duñu am. possibilité te euh, citoyen du am possibilité contester ko. le cour constitutionnel nag daf lan di may ñu am possibilité contester. à part loolu lan mooy beneen avantage bi. beneen avantage bi mooy que cour constitutionnel boobu du yam ci contrôle constitutionnalité des lois rek dafay dem ba contrôle constitutionnalité des lois constitutionnelles kooku tam beneen euh, avantage. à loolu beneen avantage encore. waaw wax naa leen ñaar je je pas euh, yorewuma fi nii en tête euh, tous les avantages mais en tout cas euh, ils sont ils dañ ils sont déterminants et puis dañ def le nombre de de juges bu boobaa dinañ ko yokk la désignation des juges dinañ ko def neneen lu du ni xam nga conseil constitutionnel bi daanaka président mooy désigné ñëpp cour constitutionnelle bés boo amee président président assemblée nationale. voilà bés boo amee neneen lañ koy neneen nañu dési désigner juge waxaguñ ko nag exactement mais jàpp naa ne modalité de désignation juge yi dina du doon benn. ba tey ci eh, ba tey juge yi dañuy am ay mandat waaw waaw mandat moom foog ñu am ko mandat mandat unique et je pense qu'il faut garder ci sama gis-gis. le mandat unique dañu war a dañu war a garder